asalaamualeykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen émission Kouthia show première émission de l'année 2017 ñu am mbégte ak contentement bu mag tey ci àllarba bi nga xam ne nag moom mooy ñeenti fan ci weer bu njëkk ci at bu bees bii di 2017 ñu am mbégte ak contentement bu mag suñu diggante ak yéen namonte amonte suñu diggante ak yéen waaye yàlla tey la tàmmali bés bi nga xam ne moom mooy njëkk tàmmali di àllarba ñu fas yéene nag dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi tey suñu programme ci gàttal ak ci gaaw lay doon danañ dem seeti ki nga xam ne moom mooy Yaya Jammeh Yaya Jammeh nag am na programme bu mu taxawal moom ci boppam pour mën a détourner li nga xam ne moom lañ koy waaj a song ki nga xam ne mooy Dabo nga nekk opposant bu njëkk ca Gambie moom tamit moo ngay mobilisation pour le 19 nan la koy defee ak nan lay amee du xam mbokk yi journal observateur moo ko bind diggante Buri ak Balla Balla ak Buri ku bëgg xam na la demee nañ ko bindee ci journal ba noonu nañ leen koy wanee ci biir plateau Kouthia Show mu nekk mbégte ak contentement suñu diggante yéen mbokk yi premier numéro 2017 bu émission Kouthia Show tàmbale na ñu am mbégte ak contentement du ñuy def na moom mooy dem seeti mbay directement ci plateau bi mbay dikkal dikkal mbay ñëwal mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay ñëwal eh, mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay ñëwal ah, ah, mbay ah, kaay mbay dikkal dikkal rapidement voilà voilà xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral mbay gaawal tey dama yàkkamti eh, eh. rapidement waaw ayca ayca ayca ayca da ngaa yàkkamti kay da ngaa yàkkamti waaw voilà <laughs> ayca ñu ñëw <laughs> ñu ñëw fooy tàmbalee si vitaliste bi lay tàmbalee ayca yoo lay xaar at bu bees vitaliste shampoing la shampoing bii nga xam ne mooy shampoing vitaliste bi waaw neutralisant la waaw baax na ci karaw da melaxal. xool ko waaye nag kaama xamal la benn affaire. waaw fixateur bu ñuul bi waaw am na grand modèle am na petit modèle. waaw pour coiffure la. waaw ñaa la jox beneen fixateur boo xam ne tamit mooy crème défrisante bi. yi nga xam ne dafa weex. waaw gel fixateur bi nga xam ne dafa transparente. war na àdduna moog bu ñuul bi. waaw ñoo bokk même mais xamalu seen différence. waaw kii dafa ñuul kii dafa transparente. kii dafa transparente. crème défrisante bi. différence. non défrisante nga ne ma def waay waay mbay yow. xanaa yow deux mille cent bi <laughs> na bu mag am na bu ndaw. <laughs> waaw démêlant bi nag moom mooy démêlant bu nourrissant. nourrissant maanaam day dundal karaw. day dundal karaw bu rose bi. waaw mooy bu karaw karaw bu fiin. waaw karaw bu fiin bu sew. yow bii nag moom mooy kit xale yi. <laughs> yaa garaaw waaw. 16 ans. ba 16 ans. mën nga ko utiliser. mën nañ koo utiliser. mbay xam na wax mu am solo. waaw vitaliste xoolal. waaw coiffeuse yëpp a nangu ñooy numéro un ci Sénégal ci Afrique ak ci monde. wuy ma te léegi xam nga lu garaw. waaw lu gën si waaw coiffeuse yëpp léegi bàyyi nañu wax coiffeuse dañ naan joxe. mais mais mais moo wóor. jeex na sa karaw. di ko beesal di ko liisal. looloo neex mais mbay. waaw tàngal mante mos dolli. 2017 bi ku ko mos dolli ko. cam takk yeeg ngénte yi jubóo yi xuloo yi lépp ci biir wuyu <laughs> ma même si église yi sax baptême yi ba pare ba pare njëg li ah. njëg li changé wul jë <laughs> xool njëg li changé wul ah mu doon jar jar li mu doon jar la kër aram jàppale nag faar ba <laughs> jeex na waaye ñoom nee nañ promotion bi jeexul amatuma si dara promotion bi jeexul jeexagul foire ba jeex na mais promotion bi jeexul bu jàll tamit gaam la. ah li ma la wax gaam nee nañ gis nga le le premier. waaw ku si nekk jot nga sa cadeau. très bien ah man du may wax waxu caaxaan. kër Aram jàppale machine à coudre jàppale rek ay caaxaan. <laughs> <laughs> machine cornière. gros fil loo joxe ñu jox la ko. loo joxe ñu jox la ko. Mbaye. kàddaa dina jóge <laughs> Mbay rapidement. mbay 2017 beneen mais mbay 2017 beneen façon la. wuy ma doo fi eh, nekk non ay cameraman yooyu amatuñu temps rapidement. wuy ma démb foo ne yow foo nekkoon fan yii. noppaliku. Ah, kaa eh. rajo ba à de 19h ba 21h. ah doo doo ma yóbbaale. rajo ba naa la invité benn jour spécialement. oui <laughs> eh, sama cadeau. wuy ma waaw. <laughs> lii ku ko moom. ren yii yow dëgg la da nga fi da nga daan da ngay noppalu <laughs> dem marché en ah, jaara dem marché naan reen yaa ngi nii tànk yu métti rhumatis wala loxo mën da koy faj métti lu mbaq da koy faj <laughs> sa bopp suy mais mais mais man laaxatu ma man damay jaay reen sa bët suy damay mocc damay jaay reen lii du ay boxoon banaana moo yow ah <laughs> weddin damay damay jaay reen laaxatu ma de waaw yow li ngay yàq. moo yow yow li ngay jaay damay mocc damay jaay reen. di mocc di jaay reen. di mocc di jaay reen. moo yow may mocc di jaay reen. moo yëg. waaw yow mbay yow dimbali ma waa yow. waa yow génnal waay. waay génnal mbay génnal waay. ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس أبو العباس voilà maa bu mag euh, di gërëm bu baax sponsor yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun suñu émission dalee ko ci Vitalis euh, ak gaamam yëpp tàngal man mos dolli kër aram jàppale ci machine ak lépp ci produit yi ñoom ñoo ñu ko gisal émission Kouthia ñuy am ci at bi bees bi ñu dugg nag di ci ñaanal kilifa diine yi rawatina sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ñu ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum xalif généralu murid yi ñu ko koy ñaanal koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di am mbégte contentement ci mboolem xalif généraux boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi gërëm tamit ki nga xam ne mooy xalif général des Layènes Chérif Abdoulaye Thiaw Laye di ko ñaanal fan bu gudd ak gu yaram di ziar suñu papa Thierno Bachir bi nga xam ne ajjuma ak samedi am na foofu nag gu mag ca Louga di chef religieux foofu ca Louga ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram alaaji Thierno Samba Sa Mourab yi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér Madani Muntaga Tall alaaji Cerno Bokar Alpha ba ca war a Habib Gueye mu wax mu Serigne Mansour Sy alaaji Cerno Nourou Tall ci Sacré Cœur alaaji Cerno Abdourahmane Bari ca Bogol nuyu nañ ko Cerno Abdou Haaw xale bu Celaaw suñu baay alaaji Ousmane Ndiaye Waliou Kamine ak soxnam Adja Mame Bousso Cissé alaaji Bassirou Bara Mbacké Serigne Gofal ca Italie ñu ngi ak Fa Abdou Gueye di la ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram seen bés baara yàlla na fi yàlla bàyyi bu yàgg fi lool sëñ Abo Mbacke ibnu sëñ Fallou Mbacke sama xarit sama sëriñ ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér kenn ñun ko ñaanal jàmm ak gu yaram ak lépp loo xam ne gàllankoor la yàlla teggil ko ko waaye tamit bàyyi ko njaboot gi mu moom sëñ Bay Si ñu ngi koy ziar di ko gërëm sëriñ Babacar Abdoul Aziz Sy ñu ngi koy ñaanal tamit fan bu waaye tamit Chérif Ahmed Tidiane Aïdara ñu ngi koy nuyu suñu bàyyi suñu bàyyi bopp la di alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou pour 100 Serigne Cheikh Tidiane jaw nekk foofu ca Yaraax tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak yu rëy ak suñu baay euh, Serigne Mama Sugu Waadaan ak mboolem taalibe boo xam ne yaa ngi foofu ca Kébémer bëgg nañu bu baax ci Abdou Karim mangaan mi nga xam ne nag ak ñaari soxnam Sadio Fatima waaye di gërëm tamit bu baax cardinal Théodore Adrien Sarr ak monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xam ne nag ñoo nekk ci jàngu gi lépp lu ñu ñaan ci yoonu Yesu Christa yàlla dafa leen ko maître Fatima Fall ñu ngi koy ñaanal bonne et heureuse année 2017 bii mu nokk nag at lu ak contentement ak jàmm ak xéewal ci moom ak njabootam yëpp moo tax it euh, du ñu fàtte suñu papa bopp di Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi di yeewoo ci Tivaouane ñu ngi koy gërëm di ko sant ak suñu yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum moom tamit kontaan nañ ci moom trop trop trop rawatina ca Binaako Chérif Chérif ay dara xalif bu Binaako Chérif ca Casamance ak Ibrahima Mané mi nga xam ne mu ngi ci Binaako Chérif porte parole Chérif Casamance yëpp nekk ci Nations Unies Cameroun ñu ngi koy gërëm di ko sant mbokk yi am nañu contentement bu mag nag suñu première émission bi nga xam ne nag tey nañ ko talmali ci àllarba bi di première émission 2017 mbokk yi xam nga ku ñu seeti ñu ngi seeti ki nga xam ne nag moom mooy Dabo mi nga xam ne moom moo jiite woon opposition bu Gambie te ki nga xam ne moom mooy président bu yees bii di Barrow ci partem la nekkoon nekkoon fa trésorier moom tamit mu ngay lancé appel ndax le 19 ma ngay gën a jege rumeur yaa ngi daw ci biir Gambie lan la Dabo fas yéene wax ak doomu Gambie yi ak ñi nga xam ne ñooy population Gambie ak africaine ñu seeti Dabo gaynde Gambie baa ngi noonu Dabo gay na gambi daabo daabo gay na gambi daabo hey hey daabo gay na gambi bangi hey hey gay na gambi bangi hey hey gay na banjul bangi hey hey gay na gambi bangi hey hey gay na banjul bangi hey hey gay na gambi bangi hey hey gay na banjul bangi na ngeen def na ngeen def maa ngi leen di santa bu baax a baax maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di santa ci kanamu yàlla suñu borom hey li des ci bas yi bëreetul ñeenti fan tey la fukki fan ak juróom moo des ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh mu abal ñu ci dëkk bi bu leen tiit bu leen dellu ginnaaw moom moo doon wax kenn du tudda turam bi ñetti rajo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir Banjul yëpp a tëj na ko lu mu foog loolu mënul tax su ker kenn mënu ko suul ker kenn mënu ko suul hey la 19 bi ñëw na ba pare képp koo xam ne yaa ngi doomu Gambi bul tontu hey bul saaga hey bul mer hey bul xulo joola soose manjaago olof xaal pulaar yëpp a na nekk benn hey dëkk ñoo ko moom dëkk santul jaame santul daabo santul baro hey Gambia people is a Senegambia people hey yàlla ate ñaari xamal ñaari bunta ñoo am biir bunta bi nga xam boo jugee Sénégal yaa ngi koy jaaree Karang ak boo xam ne boo génnee Gambie yaa ngi duggee Bignona. it is Abakin people. yes hey. doomu aadama ñooy jóge yeneen daka. di ñu dimbale ñu ne xoju na xaj di seetaan du ñu ko nangu. dañ leen di jàppale. bu waa nation si ni ñëwee. ak CEDEAO mm-hmm. nañu leen jàppale ñu wan leen yoon bi nga xam mooy tax ñun ñu mun a soxale ko pour Gàmbi jëm kanam hey Yaya Jammeh uh-huh. ñun xam nañ li nga buga waaye duñ la ko may ndax ñun li ñu buga mooy suñu dëkk bi mm-hmm. boo fi jugee jama mm-hmm. ñu ñu continuer di am jama ndax yow sa sant bi jaame la war ngaa santa ci jaame bi nga xam ne boo ci dugalee jama mm-hmm. jàmm rek ngay mun a am man lu ne def na ma ko man Yaya Jammeh fii la wax ne ku tudd turam bi mu tëj la ci kaso bi ana mu tey jeex na xale yi yi sax ñu ngi tudd turam ñëpp a turam hey xam ne Yaya la tudda ma ne Jammeh la santa kaani laay la dëkka maa ko wax Yaya hey ni Jammeh kaani laay hey ni Yaya hey ni Jammeh ey kani laay hey ma ñëw président Macky Sall ñu ko di garam nda senegal tey xeex bi nga xam ne moo war a am ñun tuddee wuñ ko xeex xam nga luñ ko tuddee ne ko coppit ne ko pay ci biti Gambie toog fi mu nekk hey képp koo xam ne doomu Gambie nga laa wax because people hena sinana alamana tiara kere la barkala mandin kole Hey. It is ñun ñoo dem ba suñu yaram yi fanaax ñu nekk ay màgget ñoo taxaw pour jàkkaarloog Yaya Jammeh ana xale yi xale yi gën a leen jigéen ki doon bañ ñu tuddoo turam dinañu tuddoo turam bi laa wax laaj leen ma nu mu tuddaa hey nu mu tuddaa xanaa yaya xanaa jaame hey ni kanilaay hey ni yaya hey ni jaame hey ni kanilaay hey ni yaya hey ni jaame hey ni kanilaay hey ni yaya hey ni jaame hey ni kanilaay hey ni yaya hey ni jaame eeni kanilay eeni yeya eeni jaame maane kanilay eeni yeya eeni jaame kanilay eeni yeya eeni jaame eeni kanilay eeni yeya ee ci biti waaye léegi mu jot kenn du ñu rey am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak suñu sponsor yi Vitalis euh, kit enfant ak nag défrisante bi ak li fixateur bi tàngal mante mos dolli kër aram jàppale ci produit yi ak ci machine yi ñuy am mbégte contentement bu mag ci Thierno Mamadou Adama Gueye xalif bu Thierno Adama Gueye nekk ca ñànk édi waaye suñu papa ñoo ko bàyyi Aliou Diagne ancien combattant nuyu nañ ko ak Alaaji Lanjoori Gueye Alaaji Mamadou Niang bàyyi Aliou Ndiaye taxawil si Mamadou Ali Birane Niang ak Mame Thierno Fama Gueye waa ñànk idi yëpp ñu ngi leen di nuyu di am mbégte contentement ci Serigne Gora Seye président mouvement les serviteurs de l'islam bu leen fàtte ne nag les 99 noms de Dieu euh, le 11 mars lay am foofu nag fu mu doon amee ci même place bi ziar nañu Baye Cheikh Mamour Insa Diop ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram waaye di am mbégte contentement ci euh, waa kër Abdou Salam yi nga xam na nag wax dëgg yàlla Serigne Omar Ngom ñu ngi ko ci nuyu Serigne Saliou Ngom Mame Thierno Ngom euh, Seer Ngom Fallou Ngom waa Njaxan Bambey yëpp ñu ngi leen di gërëm dëkk nag ca Daaru Salaam ñu ngi am mbégte contentement ci képp ko xam ne yaa ngi seetaan Serigne Amsatou Mbacké fils de Serigne Soubérou Mbacké Baye Fallou borom Daaru ca Pikine tali bu mag ak euh, ñu koy wax Serigne Amsa Mbacké ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di am mbégte contentement bu yaatu ci ab si yaayu Aïda en vacances fii ci Sénégal mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan nag ñu ngi gërëm bu baax imam Seydina Omar Ba imam bu gendarmerie front de terre Amsatou Ba di nag jigéenam ak euh, xaritam yi nekk ci États-Unis yëpp ñu ñuy tamit général Meysa Niang ak général Mamadou Gueye Faye imam Sy camp Leclerc ak imam euh, Ndiaye camp Samba Diéry Diallo imam Ba El bu Mbaaw ñu ngi koy nuyu di gërëm bu baax tamit suñu yaay euh, tata Safoura Tall présidente ëttu xam-xam gërëm nañ ko sant nañ ko Cheikh Ibra Ndiaye Fass Mbaaw la dëkk cité Mandela ak soxnam ñu ngi koy nuyu bu baax di madame Ndiaye soxna loo ñang te cité Mandela bëgg fàllu waaye Aram Ndiaye doom ji nuyu nañ ko di nuyu tamit bu baax képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show rawatina nag euh, Awa Ba suñu xarit la di chéri Youssou Guèye ñoom Rama Guèye nday Marie Guèye Ndeye Ndiaye ak euh, Marie Diarra euh, maam Diarra centre Derklé ñoom Roqoye ñoom jaara école maam école Khadim Rasoul ak maam Bousso Loum Aïta Guèye Abi Guèye maman Ndeye Marietou Ndiaye depuis HLM et toute la famille Salimata Ba Djibi Ba ca ca Liberté 5 ñu ngi leen di nuyu suñu yaay ñu naan ko ajaratu nee na Thiam dëkk ca Kaolack Yata Baye Niass ñu ngi koy gërëm di ko sant Imam Assane Cissé ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram moom tamit di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ci kanam Euh, euh, njaboot bi nga xam ne moom la jiite waaye tamit euh, képp koo xam ne tamit yaa nga ca Kaolack ñu ngi lay gërëm di la sant rawatina suñu yaay ajaratu Yata baay Niass ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak Adja Fa moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram boo xam ne nag yaa ngi foofu ca kër imam Cissé nuyu lañ ko taaw bu góor ba di Cheikh Cissé ñu ngi koy nuyu di am ca contentement ci ñoom ñëpp Asi Cissé nag la petite dame di Cap Vert sama xarit la nee na ma Kouthia fan yi dama bëgg nekkaat grande dame ma ne ko doogu mo sa doon ndax Asi yow petite petite poussine daam nga poussin poussine daam bu ndaw ñu ngi koy nuyu Astou Ba madame Lo nekk ci SGBS Sacré Cœur di xaritu maître Fatima Fall responsable politique ca Ndar gërëm nañ ko sant nañ ko mbokk yi ñu ngi am mbégte contentement dem seeti Yaya Jammeh Yaya Jammeh la doon ñu seeti di ngeen daabo di woote mobilisation Yaya Jammeh tamit fa mu taxaw fa la taxaw ba tey bougé wul un yota ñii naan Yaya dem na Guinée Conakry ñii naan Yaya ngi ca dëkk ba Yaya folli na soose yi jox doolay doolaay doola boo leen ci bëggee xam dara nañu seeti Yaya Jammeh ca biir palem ak ay recommandation ñi nga xam ne ñooy armée bi force bu Yaya Jammeh ak force tranquille bu Yaya Jammeh ñu seeti Yaya Jammeh l'homme de Kanilai képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel ci ñu ndax Gàmbi yëpp ñëpp mu ñu wax ne dañu ma bañ am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne li nga ne moo am mooy continuer di am kii nga xam ne mooy Ousmane nga xam ne lépp loo xam ne ndomba tànk la ci arme bi moom laa ko jox fan yëpp ay film la ñuy seetaan Rambo film guerre ndax Sénégal ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañuy dañuy fas yéene dugg Gambie dañuy yaakaar ne dëkk bu ndaw la xam na yére bi nga xam ne moom laa sol yére olof la waaye bii ni ne moom la Ousmane sol moom laa njëkk sol mu nekk suma kaw yaram hey ñoom le 19 ci la yoo ne ndax yaya tapet la wala yaya géré la kii nee na ma yaya boo tëddee nelaw démba ba tey lu toll ci ñaari kilo yàppa boo xee yàppa ñey la lekka guddi gi mu lekka yàppa nag moom de taxawaay soldaar la taxaw ñoom ñooy wax taxawaay soldaar bi ndax ñun bu ñu ko tuddee leneen lu dul guerre ndax du yomba ma li laa la highly is is just crisis but I don't know your species I don't know your species That's Hei, loo ko nar a yow. jege. comme que ñoom ñoo tapetul ak suma man. Ah, le 19 dina mel ne. lu kenn xalaatul ci àdduna. Ah. képp koo xam ne yaa ngi dëkk diggante Kaolack uh-huh. Japa Karañ uh-huh. Nioro Mamandéri uh-huh. ba Mbuur ba Diamniadio duma bàyyi dara man xeew ma ak waa CEDEAO de ni ma xeel xam naa leen Gambie dañu yaakaar ne ñaari buntu la juum nañu Gambie juróom ñaari buntu la Ousmane is back to speak have a xam nga boo ñëwee ba karang da nga xuus nga mel ne kuy dem fara feñe doo dem feñe da nga dem fara ah, suma xasee ba duga ba attaqué leen ñu yaakaar ne Bignona laay dem ma xuus jaar Farafeñe dem Daaru Relwan xaca tuuti dem Nioro Mamanderi su ma ko kojee Mbuur laay jàppa Gàmbi ci kanam tuuti dafa yaatu képp ku nekk Saalum Saalum nga dëkk Kaolack 19 bu soobee yàlla suñu attaqué ma attaqué Kaolack dama ko teg loxo te su nangoo Kaolack nangu naa Mbuur nangu Fatick Dakar suma la la koy teg ah, hey léegi xama lu ma bëgg man ah. man Gambie rek doyatuma ah. Sénégal laa bëgg a teg loxo eh, te mën naa ko am naa xamam bi am naa doole bi te yàlla may na ma de yàlla may na ma de li ma may xam naa ko su ma tëjee Dakar Dakar yow mën naa tëj boo tëjee jam ñaajoo tëj Patte d'Oie jaar hey Hinaka sees people down is backing is in gear yes Obasadini is Bonan Dawda Jawara yes coming to back is bargain for yes yes est-ce que bu américain yi duggaa ci guerre bi di ngeen daa war yi bu ñu duggaa ci guerre bi di ngeen daa war a doyanda. non non. école école. ngeen oh. am nañu armée am nañu galac. man te par case il baax. cukkulina cukkulina cukkulina cukkulina ay yaa ngi maa gis yaa ngi maa gis wara sama baat nga dégg ah nee na gisuma eh cukkulina cukkulina cukkala cukkala yaa ngi maa gis maa ngi laa gis hey yaa ngi maa gis wara gisuloo ma gisuma kon xam ngeen ne su ma takkee galaaj du ñu ma gis ñu ngi wax ne dañu yónnee ay drone ah. avion yoo xam ne fu ma duggaa ñu gis ma waaw ah. ah, takka galaaj naa nga gis yéen yéen a nga maa gis wala gis leen ah hey yéen a nga maa gis maa ngi laa gis gis yaa ngi takka bu yéen nga ma gis kon galaaj bi dafa da cokole na cokole na cokole yéen da nga maa gis. Yaya Jammeh ñu ngi ngi nii. Yaya Jammeh ñu ngi ngi nii. yaa ngi mag a ah, cuqal na hey yaa ngi mag hey yaa ngi mag ha yaa ngi mag Yao maa ngi am mbégte contentement bu mag ci moom di ko gërëm di ko sant bu baax Yao Gervais mon ami euh, di euh, caméraman euh, benn caméraman benn caméra benn jëm ñaari caméra ñu ngi koy nuyu di ko gërëm réalisation El Hadj Abou Bilal son El Hadj Bilal caméra Yao Gervais famille Mendy de Darou Salam à di nuyu ñoom Sabarou Mendy Kinta Mendy Dona Mendy Papis Mendy Philippe Mendy Manoël Mendy Gakeline Mendy Mary Mendy Yama Mendy François Mendy ak Dukin Mendy ñoom Laurent Mendy ak Ernest Mendy Sabrou Mendy Marta Mendy ak <laughs> Amadou Gadiaga ñoom Latir Ndiaye ñoom Lay Sow Omar Fall magget Ndiaye ñoom ñëpp ñu nga ca quartier Daaru Salaam ca Thiès ñoom daal nee nañ du ñu doyal ci li nga xam ne mooy mbaajaaju ndax kontaan nañu ci képp koo xam ne acteur nga te joué ci mbaajaaju ko ci Horatio euh, Samba Yoro Pël ak Mohamed guitariste bi ñoom ñanga ak ki nga xam ne mooy jaar waaye suñu papa di El Hadji Doudou commune de Gandon Ndiakeen la dëkk ca département bu Saint-Louis ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram soppee ki nga xam ne nag moom mooy mbay la ñu ngi koy gërëm di ko sant Khalil Ciss nekk à Pout et toute la population de Pout ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy madame Aw promotionnaire de Kouthia borom boutique la galerie des enfants ca Anne Marie sa côté brioche doré ba waaye tamit Demba Waar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant ñoom Askante depuis itali ami de Horacio ñu ngi koy nuyu tamit ñoom Habib Diakhaté di Biba euh, tel comme Italie lay liggéeyee chéri Thian Codé Diop ñu ngi koy nuyu Ousmane Diène taalibe Cheikh Béthio depuis Italie Pape Tall danseur Pape Thiam danseur ñoom ñu nga ca Europe ñu ngi leen di ñaanal bonne continuation di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne nag mooy euh, Bado le grand mécanicien de moto sama xarit la à Kébémer doomu ndeyu Horatio yéen na ko yàlla defal jàmm te yàlla wëral ay loxom ñu nuyu tamit euh, soxna euh, Naar Seen ak Kumba Koor Euh, Badou Faye ñoom Pascal Bakhoum de la part de Mohamed Dieng joyeux anniversaire à Adji de la part de Wade RFM mère Fama Ndour euh, Fatouma Mbaye ak Mariam Mbaye ñu ngi leen gërëm di leen sant di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia fois encore ñuy gërëm ñi nga xam ne ñu ñuy seetaan ñëpp di bég ci sponsor yi Vitaliste tàngal mante mos dolli aram jàppale di gërëm tamit bu baax ki nga xam ne mooy Yawa Gervais cameraman di am mbégte contentement bu mag ci moom am mbégte contentement personnellement ci Kouthia ak ñi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi di gërëm ñoom tamba Yoro Poulo Pape Lam photographe du troisième millénaire ak jaara l'équipe bi nga xam ne nag moom moo réalisé Kouthia Show mooy le personnel de Kouthia Show ñu leen di gërëm di leen sant mbokk yi ki ñu dem attaqué moom mooy Baara <laughs> Balla Gaye ak Buri Buri Pathé Balla Gaye ak <coughs> ngeen ak Buri Pathé li ñoom la ñuy seetaan histoire bi nag journal l'observateur moo ko def ñun dañ koy reprendre rek wax dëgg yàlla parce que bu fekkoon ne nekkul lu siiw sax dañ koy masla mais nag dañ ci bëgg defar defar bi mooy fexe ba ñoom ñaar bu ñu ko seetaanee ti tey ci guddi gi yàlla fexe ba seen xol àndaat ñu ànd parce que tamit buri ak Balla vraiment xaaral bu ñu seetaanee leel am nañ ci rafet njor njort ñu dem seeti buri ak Balla Gaye allo eh boy <laughs> nu mu demee nag nice ah mais 24 bi démb gain da ngay waaru oui waaw gis naa saa gis naa saa Thiès euh, euh, euh, Elton yëpp gis naa leen mais bon jaaral gàlle waaye bàyyil di ma wax ndax buri ñëw na fi mu ngi fi jaaral gàlle rek eh kenn nekk fi bu ñëwee togg waxtaan ñoom seen ñoom ñuy fële non ñoom subulu beneen appartement bi la yow ñëwul rek ñoom garaawul waaw ñëwul ñëwul ñëwul waaw ñoom Elton gars yi bu ñëwee ñu làng def ataaya nii rek xam nga làngu mbër quoi <laughs> nawel nawel làngu mbër waaw ok waaw waaw bu xam sa waaw indaale bu xam sa waaw bu xam sa waaw non deux sio fonde rek baax na ok booy xam non non non xoolal da taxi bi bu ñëwee ba golf bi nii mu tourné deuxième maison troisième boo laajte gàll bàlla rek yow ñoo nga fi mais xam nga waaw comme lu mu guddi la ñëwal waaw ñëwal léegi ok booy bisou ah booy maa ma booy xaar de <laughs> gars yi ñu toog di la xaar nii ok doy ok toi l'heure ok bul fàtte nag deux siyo fonde ah parce que gars yi dañu war a bëggee noonu ok booy nice sa xale bi xale bi xale bi xale bi yee. Eh, xale bi waa Ndiogu. allo. waay waaw Talla Buri loo jàpp bàyyi ko nga ñëw léegi balaa ngi woo fi benn gel ci kër gi loo jàpp bàyyi ko nga ñëw léegi léegi léegi. Okay, nice. Okay. Ouais. Ok, deux, trois. Voilà. Ko doon waxal téléphone. waaw yow kan nga doon waxal téléphone laa wax. yow nekkoo ci kër gi fu la yaa ngi dem sa kër. yow fii maa fi ne tey. Eh, da nga fay maa fi ne suba maa fi nekk. da nga fay loo lijjanti yow xam nga ku xam nga bu baax. baax loolu lijjanti ku dugg ci kër gi kan nga doon waxal yow kan moo la sax damay damay damay wax. kan nga doon waxal téléphone. non non non. Euh, Buri Buri. xam nga ma ma xam. yow xam nga ma bu baax. da nga fi bàyyi dem lu xew sa ginnaaw nag. waroo ko la jënd mais fii maa fi ne Balla yow xam nga loolu yow xam nga ne fii maa. boo fi nekkee rafet nga toog xam nga loolu. xam nga ne maa fi doon toog sax da ay nit da nga doon seesi. Ndiogu moo ma woo téléphone ne dafa am ko doon waxal téléphone kan la kooku laa bëgg a la jënd. ah Ndiogu moo lay wax li xew ci kër gi moom. waaw moo ma koy wax moom moo lay wax ne man dama woo jigéen fii ci kër gi. Ndiogu moo ma ko wax. ah bon waaw Ndiogu moo ma ko wax ana Ndiogu ana Ndiogu yow la wax yow li nga def rek la wax eh dafa nànk man man man je prends mes xam nga yow boo toogoon ci kër gi am na bëri lu fi xew. fii maa fii ne yow xam nga loolu kon waroo boo fi nekkoon kon. dara la xas a ginnaaw fii xam xam nga loolu sax yow. yow nga ne la xam nga moom bu may wax man jigéen fii ci kër gi da nga fi gis jigéen fi gis jigéen jàmbur bi bàyyi jàmbur bi bàyyi jàmbur bi boo ko def toon du ko wax. bala bàyyi jàmbur bi waaw gis jigéen. bàyyi jàmbur bi. moom ba nga yem wan am ma seen. nga ne wan am ma seen

yow man ngay dóor yàlla de man ngay dóor gis nga ni ma yàqee yàlla gis nga ni nga yàqee sama bët yi yàlla war ngeen gën a xaal buri yàlla man yaay Mouhamed ngeen gën a xaal buri buri buri buri <laughs>

Buri Buri Buri Buri Buri 爱过。 moom ak euh, émission Kouthia Show ba tey nag euh, ñu ngi ci Vitalis euh, gam xale ak tamit défrisante fixateur bi tàngal mante mos dolli kër aram jàppale ci produit ak machine bi mbokk yi ñu am mbégte contentement di gërëm Koumba Diagne Seri Matar Sey nekk foofu nag ak seen doom Thiané Sey Marème Sey nuyu nañ ko Adja Adama nekk ca fas ak Adja Ndeye Soxna Mbuup ñu ngi koy gërëm ak Bigé Euh, euh, Bigué ñu ngi ko nuyu Bigué Diagne ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement di nuyu tamit Ablaye Ndiaye nekk ci euh, émission Firi Guent ñu ngi koy gërëm di ko sant nekk foofu ca Tëngéej di am mbégte contentement tous les délégués médicaux de Cooper Pharma yeeg ca Yoff Apix ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu tamit maire Binta Ndiaye yaayu sama benn xarit taximan nekk foofu ñu ngi koy am mbégte contentement bu mag di ko di ko remercier bu baax nit ku baass waaye tamit Assis Cissé la petite petite dame ñu ngi koy nuyu ñoom Sali Jeeju di la nuyu bu baax waaye Baye As di xarit ci jinne yi nekk ca Grand Yoff Arafat ñu ngi koy nuyu moom Baye As suñu xarit la suñu soppeela la ñu tuddee ko Baye As xaritu jinne yi ca Grand Yoff Arafat ñu ngi koy nuyu waaye ti am mbégte contentement ci képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show kii dédicace la dédicace bi yàlla dédicace à euh, mbokk kon euh, ñu dem seeti Thione Ballago Seck ànd ak euh, kii nu mu tudd fële de la part de Fatima Diallo Pape Samba Thiam ñu seeti mbokk yi Thione ak euh, euh, ministre euh, kii de safara kii tur yoo xam ne boo ko déggee allo chef Mbaye euh, dugalal invité bi s'il vous plaît suite waaw salaamaaleykum maaleykum salaam euh, na ngeen def eh, eh, eh, waaw asalaamaaleykum. monsieur Thione Ballago Seck. waaw. ça va bien. ça va très bien. je vous en prie dama bi euh, na ngeen def. ça ñu ngi sant yàlla. mbaa ci jàmm. ça va ñu ngi sant. alhamdulilah ça va bien. ça va très bien ça va très bien. ça ah, non non non laisse laisse. ah oui oui oui. laisse. non non non monsieur Seck. ok baax na. orienté ah voilà na ngeen def. ça monsieur Seck. ça va bien. ñu ngi lay waaw. Euh, ndey euh, jàgga ma woo. Euh, yaay Waly. Mhm. woo mu ma ah. am nga fi benn coup de fil bu la woo. bi bi ma wootee présidence. ñu ne ma da ngay dem ministre de forces armées. forces armées euh, dañu la soxla. Euh, heureusement ba dew ma présidence. Euh, ma ñëw fii. donc maa ngi lay remercier bu baax monsieur le ministre. waaw merci beaucoup monsieur Thione Ballago Seck. Mm. président moo la woolu woon en fait. Ah, waaw d'accord waaw mu jaarale ko ci sama loxo. Uh-huh. parce que tout simplement dañu gis ne chanteur bu mag nga. Sénégal waaw te yàgg nga way ay kilifa. waaw parce que fàttaliku nañ ci sa way yu bari yoo xam ne ay kilifa nga ko way waaw voilà moo taxoon daal vraiment ñu bëggoon am benn way bu ñu soxla mm-hmm. am tamit lu tax ñu soxla ko waaw waa waaw suñu xel bi yëpp dem si yow ah oui ñu bëggoon a xam nag yan way yan kilifa nga fi way ak yan façon way nga leen way yu daw yaram yoo xam ne vraiment mun nga ñu ko baaxee comme ça ñun état du Sénégal pare na pour décaisser sa cinquante millions jox la ko pour way boobu nga xam ne moom nga ñuy préparer daal Condé yi bu ma fàttalikoo bi ma commencé way boobu ba léegi de yàgg na de. waaw parce que way moom ça dépend rek xam nga léegi la nouvelle génération dañu topp marimba bi ak yenn affaires yi. Mhm. mais ci jamono jamonoy baobab. ba tey man lépp lu ma mos a way rek téere la. loolu moom yàgg nañ ko wax. téere la même bu ma wooyee doomu aadama sax. c'est vrai. damay joxe leçon ci moom pour. dëgg la ñu roy ko. woy naa fi buur daali yi. woy naa fi addunaa ngi nii damal maa ngi ñëw. sax yi ci kaw suuf ci biir suuf tant de woy daal. mais yan kilifa nga way yu mag quoi ay. bëri na ay jiitu wala jiitu réew wala. bëri na woy naa fi numéro diis ok naa fi numéro 10. Mhm. président Abdou Diouf. Mhm. woy naa fi euh, président yi comme euh, Yaya Jammeh woy naa ko. Yaya Jammeh ah. woy naa tamit man woy nga ko euh, wayatu woon s'il vous plaît. Yaya Jammeh mooy euh, bi muy euh, bi may wax ci ay xar baa xam ci ah. mën faj. ci côté boobu woy naa ko. woy naa morceau intéressant mi ngi noonu nañ taxaw foofu parce que morceau boobu intéressant na trop dama bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti rek est-ce que morceau boobu mën nga ko ak cœur est-ce que mën nga ko wayaat. ah non mais loolu loolu mu mel na nga laaj ndax euh, géej am na jën. Hmm? mais loolu loolu loolu nekkul problème. Ah, parce que ci ay jaar-jaaram laa way li mu mun a faj ok ak ci am mbaaxam yooyu daal ok loolu loolu loolu moom li ma woowee Abdou Diouf rek wooy ko ñeneen ak yeneen woy yu bëri ok wooy ko ci yoonu Serigne Touba signal signal fii waaw ah, lii la la waaw lii cinquante millions yi na war a jox la n'est-ce ah. boobu mën nga ko wayaat mën nga ko reprendre correctement ban way bi nga wax léegi nii man maanaam bi nga way Yaya Jammeh waaw waaw waaw mais loolu foofu ah mais loolu waaw <laughs> parce que dañuy bëgg way ko en live quoi pas pas pas pas single bi bu eh, eh, eh, nekk playback bi en live lay nekk mais Macky may émergé ah ah oui vraiment vraiment euh, bismillah Thione Ram Daan <laughs> léegi nag d'accord léegi lay doon dañ la koy jox cinquante millions la dañ koy virer sa compte bancaire. waa baax na garaaw. Mhm. garaaw dina baax. waaw non garaaw garaaw garaaw. ok léegi nag kon le 19 la ñuy dem parce que tey jii comme signé nga ba pare ça veut dire que accordé nga ñu loolu dañu bëgg nga ànd ak euh, armée sénégalaise. waaw nga jiite leen parce que dañu war a dem def opération de délogement sans cent maanaam dafa am ku ñuy jëli te bëgguñu direct tuuru te yow lañ bëgg nga jiitu. te kooku ñuy jëli mooy Yaya Jammeh dañ ko war a génne Gàmbi te sa way bii moo ñuy permettre ñu génne ko parce que yaay ñëw wayal ko way boobu ba yaramam daw instant bi mu lay may wala mu lay battre instant boobu si la ñuy profité jàpp ko léegi nga préparé wu le 19 à 23 heures dañuy préparé def décollage ñu ngi atterrir à Kaolack foofu la ñuy jëlee bus yi ak char euh, pour départ dem Gàmbi euh, nga baal moom monsieur le ministre euh, man Thione Ballago Seck laa tudd. Mhm. di waykat. di papay Waly Ballago Seck. waaw man luy sama yoon ci guerre. way bi nga wayal yaay Jammeh. non non non kese lañu man way naa UNESCO. waaw bu fekkoon ne sax dañu ma woo pour plan UNESCO. Mhm. ma dem way pour plan UNESCO. Mhm. waaye guerre moom. ah non du guerre. bu dee pour dem rek la. waaw. mu ngeen mu nga baare. léegi président nee naa la yokkalaat yenn dix millions. dina la neex n'est-ce pas. sama bakkan bi am na leneen lu ma ko gën a lu cent millions. lu tax seetu leen ñi waykat yi nekk ci gouvernement bi. waykat yi nekk am mais Thione Seck am na waykat bu nekk ci euh, Macky Sall am na waykat bu nekk ci gouvernement am léegi xam nga ñu def waaw dinaa si yokkal cinq millions de de dama ne ministre conseil bi nekk ci gouvernement am mhm. tey way te am mouvement a yónni dañ leen da dañ leen ba pare eh, ka ka dama ne maa signé kii nga xam ne dafa nekk ci gouvernement Macky Sall. waaw yor mouvement. te moo ne fekkee ko ci boole. comme que coo am na te mu fekk ko ci na ci bokk. Euh, Thion. monsieur le ministre amul benn loi bu ma mën a forcer pour ma dem. mais yaa signé dama ne bi ñuy wax affaire politique dëggoo ñu ne Thion Seck am na parti am na mouvement. fekkee ma ci boole ki ki ki ko moom mu ngi ci mouvement présidentiel na ànd ak ñoom dem ak armée parce que gouvernement la bokk. kon nag da nga bëgg a ne uute moo la ci génne yow. de de ah dañoo yónni de. dañoo yónni. ah, ah, ah dañoo yónni de. man daw ma daw ma waali demul bàyyi waali demul yaay waali demul. coon doo génn bureau bi parce que signé nga ba pare. ah ah ah ah. ah, ah non non déedéet kay. ah déet loolu nag boo ko defee yéen a ngi wax ci yoon mais way bi yaa ko way wala wayoo. waa kii kii kii ànd ak Macky Sall nag te nekk ci ma fekkee ma ci boole te moom moo fekkee te nee na lu ñoo mu bokk ci. waa boole leen ko ci kay lu ci yoon soom sekk xool baax li ma lay wax fekkee ma ci boole. Mhm. fekkee nag xeex bi mhm. na ci bokk. man namuma cinquante millions namuma dix millions na dem addunaa ngi nii demal maa ngi ñëw bu la jaralee de politique ba politicien soxla la àndal ñoom dem waaye Thione Seck bàyyi waale rek kese namuma dara de kon doo dem nii ma ne fekkee ma ci boole moo ko tuddee boppam na ci bokk. yow eh, eh, eh, eh kon doo dem nii. dañ leen yónni man xam naa lépp. man da ngeen. non non kenn ma wuy ma. fekkee ma boole. Mhm. fekkee na cool yi na ci bokk. fekkee ko ci boole. Mhm, waaw yaram dee yaramam war na doon na ci bokk waali demul bay waali demul coon demul sekk farama ren demul moom na nga xam ne fekkee ko ci boole na ci bokk